yi moo nekk ci réew mi de kan moo koy amee hmm? Macky mënta ne réew mi dana day day bàyyi ah bàyyi waxal waxal waxal waxal mënta amee réew mi hmm? kan moo amee réew mi kuy doon président Sénégal ci 2019 bi mën na ma ko wax mën ko kan la du doon Macky Sall moom moo fi nekk de kan lay kan? ya? iya. hmm dina toog mooy nekk ci réew mi hmm dina toog waaye du gañe ah dina toog waaye du gañe waaye mooy toogaat mooy toogaat waaye du gañe hmm tax loolu mbaa réew yi doon xeex deret ak gën a jaxasoo uh-huh. waaw bu ko defee nag leen comme yéen sumay taalibe ngeen mm-hmm. dama bëgg nag réew mi bu nekkee ngeen ut fi jàmm affaire yi fi nekk di nekk yenn formation yi nekk fi di yàq mm-hmm. dàq la ñu génn kër gi yi dem nañ mm-hmm. hmm. lañ nekk bu ci gannaaw fan sama gannaaw néeg fii la nekk ñoo ngi fiy jéem dara. luy jéem waaye na. ma dara. yow dama dama xeex ak yéen ba ñëw ba fii lu tax booboo nangoo bàyyi nga koy dem doon dugg ci bale gi. da hmm. hmm? nga ko bëggoon waaw léegi bàyyi nga ko bàyyi nga ko mu sëy léegi yow bu nekkee dina am ay jinne yoo xam ne ay jigéen lañ ñoo ngi fi gis nga leen. ñoom dinañ leen tuubal dinañ la ci xool kun la ci may mu doon sa jabar dëgg nga hmm? waaw dinañ la xool kun la may bu ko defee mu doon sa jabar dégg nga loolu dina mën a nekk dégg nga man maa fay dem bu ma dem lu tax su ma demee ah su ma fa demee na tasaaroo bu koy tasaare Hmm? Hah? Dah jam lah. Dah jam lagi don. Dah jam lagi don. Dah jam 9 atas. Yang ñoy tas, yang ñoo pada je. Ay jinne lañ. Ñoom dañuy bañ suma fa démé daw. danañ daw léegi nan lay def su ma fa demul lan lay wére ah waaw ñu indil ma ko ñu indi ko ci man waaw ñu def ko sutura aha ñu indi ko waaw mu ñëw ci man aha dina jóg incha allah way sarax bi bay bi fan lañ koy def ci kërëm gi fofu wala fan la koy def ci digg kërëm waaw bay bi bu ko defé est-ce buñ defé bay bi mu jox bu ko defé mu jox hmm hmm alhamdulilah dana jox alhamdulilah légui man man na fa yone rek ñu def sarax bi ci biir kër bi ha dafa yone ñu def ko waye waye man dal buma dem yóbbu bu ma dem. dinañ ko rey bu waaw. إنما حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم الله ميتة إنما حرم الله ميتة والدم ولحم الخنزير جندل وانتم اللي ناظر جن جيران حلبي جندل إيش هو ولا نحلم جندل نحلم وجندل ملقي وما لك ها كما قلت جندل دين الملقي بشكل نفسك yow yàkkante gis nga gaa yi fi nekk gis nga leen ah yéen ñi koy def wax leen ñu ànd ngeen dem farafe yi dindin ma liggéey bi te ngeen bàyyi góor gi ña fa nekk di ko yuuxuloo ñu dindi ko dégg dinañ jënd bay bi mu defal ko sarax yow na la Ousmane boole naa la ci jiwri ñi nga xam ne si ñoom ñooy ànd di def lu baax bu leen dugg kenn bu leen yàqal nit bu leen gaañ nit bu leen def lu bon bu leen naan deret bu leen lekk yàqu mbaam te dama bëgg ngeen tuub tuub boobu mu nekk ci yéen dafa war a dëggu ndax li daa góor-góor a dëggu bu ko defee rek incha allah yàlla dafa ne wa maa xalaxal jinna wal insa illaa liya'buduun bu ko defee ñun ñëpp dañ ciy bokk tënku kon defe naa ne tey ay jullit ngeen ci jullit ñi dëggu na ci yow dëggu na dëggu na bu baax bu baax yow moom doon tuddoon Modou Ndiaye E léegi dugg dugg bi nga dugg suy naaw sama léegi tey mu sëy moo koy takk waaw yow yaa yow yow démb yaa ko joxoon jaaro bi nga jël jaaro bi di ko déer ceen bi jël nga ko bàyyi nga ko bàyyi nga ko dootoo ko topp dootoo ko yàqal papaam yéen ko toppal nga ne lu ñuy def sarax bay bi ñetti saam waaw waaw waaw jox ko jigéen nga defee ñu bindal ko ayatul kursi téeméer ak juróom fukk mu koy naan di ko sangu bu ko defee nag léegi liggéey bi jabar ji jabar ji def liggéey bi nu mu tudd Fatou moo def liggéey bi ci ron la ko def mu kontu ak doomam doom ji nu tudd liggéey boobu lu tax mu def ko waaw. <laughs> sa wujj yow moom la gën a bëgg ah, d'accord d'accord moo tax mu mu mu mu yàq loolu d'accord léegi nag góor gi dina jóg dina jóg léegi dama dama bëgg ci guddi gi ngeen dem tojal ma liggéey bi ah toj ngeen dindi ngeen yow yaakaar yéen a demoon dindi ko yéen ñëpp a dindi ngeen ko liggéey bi lan la woon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 yàqu bi na bari ñu ngi ci dëkk bi dugg nañ fan lañ jógee mhm. waaw mhm. Mhm. léegi lu ñu def sarax ñoom kon bàyyi leen kon bàyyi ndax Sénégal ak réew mi kan mooy doon président waaw Xalifa Sall moom lañ ko doon def